Assane moom quitté nañu presque naa demoon Maroc avant muy dem Maroc am na relation d'amour bu amoon digganteem ak xale bu jigéen bi ñu doon ànd loolu am na. avant Maroc ñu ngi doon ànd. Assane pour résumer la bi mu régee ne xale bu jigéen bi marié na ak fi mu ñëwee daanaka benn la mais na ñëpp xam ne xale bi dafa am lu mu jëflante woon ak xale bu jigéen bi. daa am lu doxoon ci digganteem ak xale bu jigéen muy xaalis xaalis boo xam ne xale bi moo ko doon jël moom Assane sunu rakk di ko jël di ko dénk Marème parce que Marème même ay parent am nee nañu ni moom da daan dencal papam xaalis dégg nañ ci version bu ne pourquoi xale bi jël xaalis bi di ko dénk n'importe qui ku mu bokkalul loolu moo culture Sénégal ñoo ànd. waaw yan preuve mooy. bi ma demee ne ko Assane loolu doo am preuve dafa ma ne dinaa am preuve bu fekkee enquête bi déroulé na li mu war a déroulé duñ ci loon bëgg a xuus sax nag mais def na ay transfert d'argent par Ria yoo xam ne numéro Maroc la bu dem ci numéro xale bu jigéen bi kon loolu dañ koy bàyyi ñi nga xam ne ñoo yor wàllu enquête bi est xale bi les trois derniers mois wala les deux derniers mois recevoir na xaalis bu jóge Maroc parce que boo jotee xaalis bi day am source boo xam ne maanaam message buy ñëw ci ki la ko envoyé. waaw parce que Assane bi mu yëgee ni booy bi marié na ak fi mu ñibbisee Sénégal benn bi biñ koy yónnee xaalis bi man ci li joxe xaalis bi ci laa bokk pour mu ñibbisi Sénégal mille ñu daggal ko bii mais bi muy ñëw ñun xamuñu lan mooy ñëw jàpp nañ ne dafay dem di tukki dëgër na mi ngi ñibbisi mais boobu moom mbébét na li muy mbébét.

man duma ko ci défendre ànduma ci mais dama ni bu mbir amee nañu xool les tey Marème mi ci benn niveau boo xam ne mënuñu koo xam. xayma millions la ma Assane wax 3 millions man ko noo ko doon joxee mun ma maratoire lu ma am yónnee ko parce que mënuma tijji compte biir Maroc bi mu toogee ba gis ku ko mun a jëlee Marrakech pour yóbbu ko Madrid. déglu bu baax mu gis ko ko mën a jëlee Marrakech pour yóbbu ko Madrid dafa ci la commencé woo Marème Marème au début di ko jël di ko fixer rendez-vous dinaa ko dugal dinaa ko dugal dinaa ko dugal et finalement Assane mënut ko jot il a fallu mu woo benn copain copain boobu moo dem ñëw ni ko man mënuma laa yóbbul sama téléphone ci Marème parce que elle est mariée jour boobu la ko Assane xam et jour boobu la Assane programmé pour ñëw Sénégal Assane bi muy ñëw Sénégal ci yoon démb ci le 9 démb le 9 le 8 la waroon a ñibbi dimanche soir dafa war a ñëw jeudi jël si xaalisam dimanche mu dem lundi mu entamé dossier ma ak waa ji ko war a dugal biir Madrid loolu moo ko fi indi woon ba lii dal dal ko mais lan mooy problème bi tamit nit xale bu ndaw dama lay wax benn affaire ki ñu rey rey nañ ko metti na. gis nga kii bëgg a jël bakkanam jaar ci biir géej pour dem mu tekki boo lekkee xaalisam mën na la def lu ne de. ki nga xam ne géej jaral na ko moom moom tekki jaral na ko jaar ci biir géej mu am paasam bàyyi ko fi te nga nekkoon un menuisier bois xamoo géej nga ni dangay jaar ci géej pour dem pour dem Europe ki nga war a jox sa xaalis mu leer moo lekk sa xaalis waaw mais ki bëgg a tay la laay fam ci géej. est-ce noo jàppoon ni bëggeel bi mu xaalis a ko gënal mën a am mais nag da koy liggéey. mais waaw xam nga wéeru duñ ko yóbbu ci niveau boo xam ne dafa dof comme kuy dóore mais boo waxtaanee moom xam ne niveau bi des fois ki ngay waxtaanal tey bu soo boo leen toogaatee nga xam ne du même personne bi même niveau bi nga doon wax ak moom loolu day am day am koo xam ne des fois day nekk des fois du nekk dóorewul du def dara mais des fois yow psychologiquement man dama ne place Assane du euh, du prison place Assane du police Assane psychologue moo ko war a xool man nag dem naa démb police gisante naa ak moom moom wax na ma lu baree baree baree bare mais il faut que ñu arrêté di joxe ay information yoo xam ne wérul. desee ci fayante ngeen laajtee xaalis ñu mais déggoo li ma la wax sax tey bu may condamné la mère de Marème ak condamné li mu xam au courant ci li xew ba dem ci police bu duggoon dox dànkam en tant que mag ñëw ci famille assan yaakaar naa ne dinañ téye suñu doom xam niñ koy lijjantee. mais dafa ñëw joxe fa convocation bi mu koy jox convocation tantay Assane la ko jox. kooku ne ko Assane nekkul ci dëkk bi ko mën ko Assane ñëw na ci dëkk bi. boobu ñun xam nañu ni Assane day ñibbisi parce que benn avant yónnee nañ koo xaa daggal nañ ko billet. mais bi ko joxe non police bu la joxee un feu vert ni la foo gis di wooñu yow waroon nangu un n'importe qui naan la xale bi dafa bëgg a ñëw tuub. c'est ce qu'il a dit moom moo ko wax. vidéo sont là un homme de loi ni la boo ko gisee ci ñu fees si ñu ñëw jël si ko yow nga nga gis ko di ko may accès muy dugg ba ci sa biir kër di baalu. et loolu moom may Assane mu ñëwaat ci kër gi parce que ñoom jàpp nañu ne comme baalu na sànq war na mën a continuer nit boo amee jëkkër. fekk kër gi ñu tëj c'est faux c'est que as man du ma wax ci nit ñi li ma Assane wax laay wax. Mhm. ci buntu kër gi laa romb romb boutique bi dugg ci néegu Marème. ba mu duggee ci néegu nañu toujours femme bi ta nekk yaay Marème moo ni Marème moo ñëwaat ni ko yaay Assane woo na ma tey suba. romb na yaayam bi muy dem bi muy dem ci néeg bi en haut romb na yaay Marème. bi mu ci biir néeg fi ci foofu dama lay jël ci li ñu wax ñoom. ci ñoom li ñu wax. échange nañ ba ci yàgg yaayam dégg yuuxu. mais xam nga ñëpp xam nañu ni moom mooy moom moo moom moo ko def lim koy def moo ko rey xam nga loolu moom accepté na ko mais les faits la ñu wax ñu. les mooy je le dis mooy xale bi moo lekk xaalisu Assane. waa Medina Fall ñu ngi leen di jégaluwaat amuñu problème ak ñoom. problème la bu amoon ci diggante ñaari nit yu doon ànd ñaari nit yu doon ànd Assane amul preuve la ñuy bañ dégg bu police defee liggéeyam dem Sonatel Assane nee na Ria la doon yónnee booy bi xaalis dinañ la wan ni numéro Maroc bi recevoir na xaalis